daal di wàcc waa Njaareem am nañ am nañ ak cant waa Njaareem am na cant bu rëy koo xam si jëmm ju sell ju bàyyi bàyyi dem ba deuxième koñ bi dañ dem ba beneen koñ bi fi dafa dafa bëri avancé avancé dañ dem benn bee la benn bee la Не бойтесь, не бойтесь. porte bi bloqué on bloque on bloque Tëf Thank you.